nañ cinq minutes war a delloo mbattulo sa boy boy ba boy tibb nañ suuf jaxasoo hop hop hop Géant Balla Siteu bu Fuuta arbitre suuf la na wure wa dem na këng waxe mag dem na nañ taal comme nañ ko doon waxee comme daab ña ngay léewtoo léewtoo bu sori kaw bilaay ña ngay léewtoo léewtoo bu sori kaw non booy léegi ñoom ñëpp benn combat yombul booy dañ koy coos de mais sànq réparé ak sa waay bagaar nañ hop oh, hop hop hop hop combat yi du yomb de combat mercredi la moo tax mercredi loo si tàggoo sax de du yoon ba du yomb waxuma la ak bëre ba mercredi moom dara am yombul waaw waaw seet te te te gars yi yaa ngi lew too si tabu ngor ni muy yoote di ñëw baax na mais Géant bu Balla gi lii du mbabat lii bëri arène la boo xeexul doo bëree Géant bu Balla du sonkat Sonka du sore nii keroog muy sotti Géant du ko mës a song Siteu bu Ngor gi raam di ñëw Siteu bu bu Fuuta Siteu bu Fuuta ak Géant Balla waaw waaw so tot tot fay biram la du yomb combat fay biram dee na ku si dugg di nga dugg dugg génn génn mu di nga daangi daangi jëli ko arbitre souffle na lu xew Siteu lu xew wax na dëgg bërewu leen da nga di laamisoo jeex na fi si xale xale du laamisoo bëre leen mu jeex liñ leen di fay buñ ko daggee ngeen waayaa di war zongale na ko njool kenn ko zongale fii ba suba lool du dem waaw waaw waaw waaw Siteu a ngi si biir Siteu Siteu bu Fuuta moo féete biir Zaya moo féete si kaw Zaya moo ngemboo ngembulu bulali Oh, remise waaw waaw Siteu doon na ko kal kal ba bañ mu delluwaat arbitre suuf la ne waat na lu ma la waxoon waaw mooy tur dañuy aja dañuy avertiser wala ñu tolloo wala mi-temps mi-temps booy bi gagné na ko par avertissement oh dafa mel ne Siteu moo gagné par avertissement ñaari combat yëpp par avertissement la ñaari combat yëpp par avertissement la.